Sport TV le Baba Show l'actualité en continu gars actualité bi ñu jox leen nag bonne nouvelle jëm ci nampalis mais di wax également ci Mori Diaw mi dem ca Makka kii di Nicolas Jackson mi xam ne temps yi gars yi nekku ci dara ak également benn booy <laughs> bu sant Diouf bu ñëw Sénégal temps yi affaire daal mi ngi commencé carte yaa ngi commencé changer quoi nañ ci ndey leeral laata boobu nag ki nga xam Jules Koundé mi ngi fii ah dafa ñëw fii nag gars yi pour ay association am da cee bokk ñu daal am ab action caritative bi def mais également jaar na bi sport dem seeti leen bi sport nag gis ngeen ah, di académie bu béy bu yees bu nekk fi xam ñu ngi liggéey liggéey solo partenariat ak ñi xam donc wa FC Barcelone pendant ce temps également McGregor ak ki nga xam na gars moy donc Cristiano Ronaldo ñoo dañal hein, le box le joueur plutôt le champion MMA ak ki nga xam également moy une des légendes du football ñoo dajé fa nga donc ci Arabie Saoudite notamment ci box yi amoon démb ki nga xam donc Jim Ratcliffe ah, ak Eneos ñew nañ daal légui jënd 25% ci part yu wa Manchester United donc fimné ni nak Jean-Claude Blanc bi nga xam bokkon na ci njiit yi nekkoon du côté du Paris Saint-Germain te démissionné mom ñuy and ñom ñaara pour ñew liggéey ak Manchester Manchester également gars yi dañoo joxe ben information né nañ Ole Gunnar Solskjaer ba fa nekkee euh, entraîneur Solskjaer dafa di doon piste ki moy donc Boy bi ngeen gis ni mais gars jamono jooju dañu amoon 25 millions la jar mais finalement nak quelques euh, semaine la avant ñu ko dàq finalement ki wa Manchester ñu ko jëndee 85 millions qui nak également du Kubo gaay nañ fi ni dal ah, donc selon Daily Daily Mail nee wa Manchester United paré nañ pour dal koy fay 7 fois limi muy donc du côté du Real Sociedad pour dal koy indi moom mi nga xamna gaay gars ah Kubo joueur bu mën football nak machallah allah rabi donc next dynamique bu pendant ce également Wolverhampton mo dal di ñi nga xam donc bu Chelsea deux buts à un grâce également à Mario Lemina ak Doherty ñoo donc Nkunku tamit gars yi ñoo réduit la marque pour euh, donc les joueurs des Blues de Chelsea mais qui nga xam ne daal mooy Pochettino Pochettino daal gars yi temps yi ñàkk na tooy xeeb xeeb xeeb xeeb xeeb ñàkk na instant ah il est sur une chaise éjectable hein, donc qui nga xam l'entraîneur euh, de Chelsea moom dal depuis bu mu jógee Tottenham daal kenn xàmmeetu ko jaar na Paris Saint-Germain résultat yi demeewul noonu fi mu mi ngi du côté de Chelsea tamit demeewul non mais Nicolas Jackson aussi gars yi sincèrement je ne comprends pas Nicolas Jackson temps dal daal Chelsea dama gis que voilà collectif moo manqué trop am na occasion yu franche yoo xam ne dañ ko daal di raté beaucoup ci ki nga également donc euh, l'international sénégalais Nicolas Jackson xool leen li mu raté xool li Nicolas Jackson opportunité bi malheureusement comme je dis rek boo ci nekkul rek nekku ci on espère que ne avant Cannes bi nii bu ñëwee sax dina retrouver confiance am tout parce que on a besoin de nos meilleurs joueurs mais aussi en forme ngir bu ñu amee genre occasion yu ñu mën a def différence parce que CAN moom ay détails ñoo koy daal di gagné pendant ce temps retrouvaille entre ki nga donc Mateo Kovacic ak également ki nga xam donc Marcelo le joueur le plus titré de la Casablanca et l'un des joueurs les plus titrés au monde le brésilien gis nga ñu daje woon ci final coupe du monde des clubs bi ñu ngi ñu ni euh, Manchester City ñoo ko gagné pendant ce nag ki nga xam ne également mooy donc Joao Cancelo moom itamit joueur Manchester City gars yi dañ jamono daal City 30 millions la ciy laaj bu fekkee ne waa FC Barcelone dañ ko bëgg jënd ndax prêt avec option d'achat bien sûr mais également ki également di Gabriel Moscardo di beneen pépite de nak Paris Saint-Germain da ko oui muy euh, donc joueur militaire brésilien fini dans le dégo presque amna pour officialiser ko donc Paris Saint-Germain fini ñi renforcer ñom a na boy set recrutement bu intelligent la def na dañuy recruter ay boy yoo ay talent prometteur lañ jël ko def ko autour de Warren Zaïre-Emery parce que ki nga xam mooy Mbappé day dem gars ñu laaj précision nee naa leen kii Mendy c'est 10 clean sheet du douze du c'est 10 clean sheet en 18 matchs

au niveau donc du championnat saoudien mi ngi nii les détails sont clairs comme on dit wérante xuxaan euh, li ci dess nak du ma ko yeggale pendant ce temps Mory Diaw gis ngeen ko mi ngi ni posté na il est à la Mecca ah, ma nga ci màkkatal mu karam diko ko wax amina ah, amin amin hala haj haj mouri ñu ko wax amin ya rabbi donc di ñaan également mom ñaan mi fa ñaan xamna ñi sûrement moy déjà Coupe d'Afrique Sénégal jël ko yalla na suñu borom nangu pendant ce temps booy bi sante Diouf néna la gay wiri wiri wiiri daari li lii kat nan wiri wiri wiiri daari voilà donc euh, ki nak di andi Diouf mi ngi ci Sénégal ah, Amantan Bichonnek ah, mi ngi nii dal na pour la nek mom mi ne donc refusé né donc priorité en France la jox gars yi ñu ngi ne yabaté pendant ce bonne nouvelle gars pour ki nga xamné donc euh, dit euh, donc euh, ñu ah, koy plutôt euh, Nampalys Mendy entraîneur spécial am la wutan hein, boo genre kiné la pour toppatoo ko blessure depuis ñaari semaine mi ngi koy toppatoo nak mom il veut venir pour la CAN gis ngeen ko fi mi ngi wane boppam baax baax nekk ci ligue bu am solo amna yenen bonne nouvelle yo xamné dañ lañ leen ko jox également ci kanam ci prochaine euh, prochain numéro yi jëm également ci li nga xamné la mooy donc euh, li di groupe équipe nationale du Sénégal également amna na lo xamné xam ne mi ngi koy préparer et que gars yi c' du 55 cinq 50 lol mom bu sottee xamna am na ñu koy mere am nañu ko lu méré mais on espère que ñun ñoy juum ci côté bobu boobu quand vous, gars, je vous encore une fois, vous les likes, vous les abonnés. Demain, Inch'Allah, Babo Show reprend avec de nouvelles choses, de nouvelles idées. And check je conclue avec yep, les démarrer, vous calme démarrer. Il y en Yen, nak, nan, c'est également, actuellement, les gars, donc, forme vous, Nicolas Jackson, et aussi la nouvelle de Nampalis Mendy. Vous les likes, vous les d'abonner. On avance ensemble dans la magie de eSport TV. Vous barretiez le bonus nul. Yangen Diouf.